asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal tey sàkku seen ñaan di sàkku ci yéen ñu ànd ñaanal suñu kilifa suñu borom tabaraka wa taala gën leen fee yàggal te wéral leen ñu jiital ci nuyoo bi saahibul fadila cheikh mouhamadul muntaxa ibnu cheikh mouhamadul bachir xaalif général des mourides di ñaan suñu borom gën ko fee yàggal te defal ko ak wér ak kàttan gu mu àggale yéeneem ci lislaam ak ñooñ lislaam te àggale yéene taalibe yi ci moom moo ngi am mbégte ànd ak yéen indil leen siyaara général bi nga xam ne daayira xidmatul xadim defal nañ ko ci xalif général de Mouride le 16 avril 2018 ci kër sëriñ tubaab gi ci jumaa ji daayira xidmatul xadim Serigne Mame Bara Mbacke moom Serigne Moustapha Abdoul Aziz jiite ko di ci liggéey liggéey bu am solo boo xam ne dëppoo na ak jamono muy daara joo xam ne mi ngi ko taxawal ci ndigalul waajuram gannaaw boo xamee ne jàng na alxuraan bind kaamil aw fii nga xam ne fii la ay nawleem jaar ba war a yor daara sunu borom tàbbal daara ji ci ay yoxoom mu am ci pasteef lool fas yéene wéyal liggéey juróom mu tedd wa yàlla dogal tur yi nga xam ne mooy turu daayira daara ji bàyyi ko ci Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu anhu tudde ko xidmatul xadim xidmatul xadim jooju nag mooy li nga xam ne moo ñulug maam baara mu feddali ak laxasaayam yokkaat pasteefam euh, yëkkati yitteem jëme ko itam nag ci fas yéene liggéeyal Serigne tubaa ci alquran suñu borom defal ko ci taw macha allah jërëjëf Baye Umar Kane Balla Aïssa ci tijji bu am solo boobu nga xamante ni leeral nga ko bokk taalibe yi nga xamante ni ñoo fii ci résidence bi nga xamante ni mooy kër Serigne Touba bi nga xamante ni mën nañu ziar yi nga xamante ni mboolem fa ab taalibe nekk war jëbal jébbal ab ziaram rek. fii nga xamante ni moo kër Serigne Touba gi li ci ëpp fi la ñuy fekk Serigne mun taxa jëbal ko seenub ziar. tey ji nag mbokk yi ñu ñëw ànd ak kenn ci njaboot gi muy Serigne Mame Bara Mbacke Serigne Mame Bara Mbacke nag kenn ku nekk xam ko ci taxawaayam bu mat bi nga xamante ni amal na ko ci wàllu daaray alxuraanul karim ngeen gis noonu ñu dem fële ca tan euh, ñu dem fële ca daaru Tanzir ci daaraam ji nga xamante ni ñu ko tuddee xidmatul xaddiim ñu doon daara joo xamante ni boo fa duggee rek ci taxawaay bi nga xamante ni Mame am na ko ci dongo yi am ko ci li nga xamante ni mooy alxuraanul karim ba di ci jéem a tàggat li nga xamante ni mooy tutànk yi rek sa xol dina sedd lool ci seen taxawaay bu am solo bi nga xamante ni taxaw na ko ci bu baax a baax ngeen gis noonu ñu ànd ak moom jóge fële ca daara jële nga xamante ni mooy daaru Tanzir ànd ak moom ñëw fii ci résidence bi ngeen gis noonu gone yi nga xamante ni mi ngi leen di tàggat ci alxuraanul karim ñu ñëw noonu it la tàggatee ci li nga xamante ni mooy njàngum xasaayat ngeen gis noonu mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi ak ci bitim réew ñëpp ci dongo yi ànd ak moom ñëw ziar bi nga xamante ni mi ngi koy amal tey jii niki altine fas yéene ziar Cheikh Mouhamadul Mountakha fii ci kër Serigne Touba gi incha allahu rabbi dalal du leen ci raw lépp loo xamante ni am na fi rek moo xam ay kàddu yu war a jubla wala addiya yoo xamante ni daf koy jébbal ki nga xamante ni mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha Touba Vision dinañ leen ko indil kon xam naa dañ geen di bàyyi rek ngeen xool li nga xamante ni tey jii moom lañ fas yéene indil leen ziar bi nga xamante ni Baara Mbacke mi ngi koy ànd ak daaraam ji nga xamante ni mooy xidmatul xadim maanaam ñu gën koo xame ci njàngalem arxunaanu kërim waaye tàggat xale yi ci li nga xamante ni mooy njàngum xasida goo xamante ni képp koo xamante ni yaa ngi déglu xale yi rek sa xol dina sedd bu baax a baax a baax Wow. daara ji fi mu nekk nii ñi ci nekk ci mbooloo neexut a lim waaye li ci liñ ci mën a tënk rek moo di ñaar téeméeri nit ak ñaar fukk ak juróom-ñett mokkal nañ fi alxuraan kon loolu xam ne xam nañ ne daara ju ndaw deux cent vingt-huit élèves mokkal nañ fi alxuraan ci biir loolu itam téeméeri ndongo ak juróom fukk bind nañ fi ay kaamil loolu itam ba tey tawféex la cent cinquante élèves kenn ku nekk bind kaamil mu bokk ci itam nag muy daara joo xam ne ni mu yaatale ay ay bànqaasam tàllal loxo bindeef yëpp loolu itam tax na ñu wuysee ko fu ne am na ay ñoo xam ne ñu ngi bàyyi ko ci gox yi wër réew mi te judduwuñ ci biir Sénégal ñëw nañ fii ñoo xam ne ñi ngi jóge Espagne ñi ngi jógee kanadaa ñi ngi jógee ay ay fune rek ay Gambie loo xam ne war naa mat fanweeri ñi teg juróom-ñaar ñoo xam ne juddoowuñu Sénégal kenn ku nekk ñëw fii seeni waajur wajur indi leen fi ngir euh, rafetlu gu ñu rafetlu taxawaayu sëriñ maam Baara mu di ko def nag at mu jot itam dana woote benn euh, conférence boo xam ne dana leeral euh, parents d'élèves yi njàngum xale yi ak seenu taxawaay waaye itam nag mu boole ci yarub lislaam ak lépp loo xam ne doomu aadama war na koo xam rek mu ngi yëngu ci daaray xidmatul xadim fii ci daaru tansil ak ni mu yaatoo itam ci réew yi nga xam ne fenn fu nekk mu ngi am yéene daara ji ak foofa bu mu nekk ci liggéey boobu nag ba sunu borom dogal sëriñ Touba sëriñ sëriñ Mountakha Mbacké eh, nekk xalif général des Mourides mu am yéene nag na mu ko daan defee ci ay kilifaam yi ko jiitu woon at mu jot mu dem siyaare sëriñ Touba moo tax ren nag mu jàpp bés boobu di la sees ñëw ànd ak daara ji lépp ñëw ci kër sëñ Touba gi siyaare sëriñ Mountakha moom Cheikh dul Bachir mi nga xam ne moom la yàlla def tey muy sëriñ Touba. ci biir siyaar boobu itam nag sëriñ Mame bi nga xamee ne ànd naag bokk yi ñëw. àndandoo ay wóllëreem ak jàngalekat yi ak ñi nga xam ne itam ñoom la seqal sëñ Moustapha Abdoul Aziz ku ci mel ni sëñ Cheikh Thioro ak bokk yu bari ànd ak ñoom ñëw daal di sukk nag ci kanam sëriñ Mouhamadul Mountakha daal di koy leeral liggéey bi xamal ko itam li nga xam ne moo di ak jubloom ak itam nag fi nga xam ne fi la bëgg a yóbbu daara ji waaye lépp nag mu am pas-pasub ànd ak sëriñ Mountakha ci li nga xam ne moom la woo taalibe yi te mooy ñu fas yéene farluwaat ci jàngat sunu bopp. jàngat suñu diine xam xam lan mooy xam-xam nga xam ne lépp léppam yitteem jëpp mi ngi ko tàmbalee ci xam-xam dundalaat xam-xam ndax ci xam-xam rek lu nit ki mën a jaar ba def lim bëgg a def loolu nag mooy yéene sëriñ Maam Baara Mbàkke ànd ko ak sëriñ Mamadou Muntaxa loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom lay leeral nii ñu ànd déglu sëriñ Maam Baara gannaaw boo xamee ne saafu ante naag sëriñ bi jox ko addiyaam te addiya ji li ko ci gën a neex nag gën ko cee ñor moo di kaamil boo xam ne mbooloo ko bind ci mbooloo moo xam ne ci biir daara ji la ñu nekk nga xam ne du kenn du ñaar mbooloo mu bari ñoo seq kaamil boobu bind ko mu boole ko ak addiyaam fasal ko ci lu bari itam loolu kon nu ànd déglu Serigne Mame Bara Mbacke kàddu yi nga xam ne wax na ko ci kanam mu Cheikh Modou Mountakha ak kàddu yi nga xam ne itam Cheikh Modou Mountakha tontu na ko ko. du téeméer ak ñi mu àndal liggéey Serigne Touba. Euh, daara ji ci boppam. sëb sëb moo ko sanc di maam Baara. ñu tuddee ko daara xidmatul xadim sëñ Saliou moo ko tuddee ca xelkom. bi mu ñu joxee tur woowu ñu ñëw ci juróom-ñaari nit lañ tàmbalee. tey daara ji ci boppam. ñaar téeméeri nit ak ñaar fukk ak juróom-ñett mokkalagoon nañ fi alxuraan. téeméeri nit ak juróom fukk bind nañ fi kaamil. am nañ fanweeri nit a juróom-ñaar yoo xamante ni bii bitim réew lañ jóge muy Italie Amérique France Canada di jàng si ngir ñaanuk sëñ Touba ga nit ñaa ngi juddoo ci àll ba di ñëw di jàng si si Touba daara ji sëñ Sidi Mokhtar moo ma sanc loo daara ji nekk Mbàkke Kajoor daara moderne ba man la ko jox mooy la ko état bi joxoon Touba gii tamit ñeenti daara yi fi état bi doon tabax man la ko sëñ Siidi Muxtaar tegoon ci ab loxoom benn ba ci sëñ Amadou Muxtaar lañ ko tabaxal kër kab bu joxee dafa fàttaliku ñeenti daare sëñ Touba état bi tabax ñeenti daare mu ne ma damaa am yaakaar ndax sëñ Baara ba mu ganee àdduna euh, ñeenti daare ñi ñi amoon ngërëm moo tax tey ma jox la te am naa yaakaar ci yow waaye tàmbali nga fekkeewu ko yow mii yaa koy fekkee ma bëgg nga ñaanal ñu ak kattan ñu liggéeyal la ci te liggéey bi ngay liggéeyal Serigne Touba ci xam-xam nga ko tàmbali ak ci alxuraan daan teral ñëpp ñun ñu bokk ci sañ jaboot doon taalibe Serigne Touba fas yéene ànd ak yow liggéeyee boobu nga ñaanal dong yi yàlla def ci ñoom barke te ñun bëgguñ dara ci suñu àdduna lu dul liggéey boo xam ne dañ ko liggéey te liggéey bi sëñ Moustapha Abdoulaye Ciss moo sañcoon daara ji ci Mbàkke Baari bi ko yoroon man ma sos ko ngir fas yéene àggale yéeneem ja ndax daara joojoo noona sëñ Moustapha moo daan dundal ñu fa nekk man mii fa laa bindee kaamil sama kaamil ba mu jox ko sëñ sëñ hmm. mu daan ma jàngaloo ay kaamil ma di ko ñaanal bu daan tukki man la daan jàngaloo ay kaamil ndax daara ji am na ñaar ci Touba am na Mbacke Kajoor am na Togg Diop am na Mbaam Jigaan ak yeneen ñeent daara yu ñu fas yéene def lépp nag ñu fas yéene ko ànd ak yow ñu ngi ciy jàng xam-xam ñu ngi ciy jàng euh, alxuraan ñooñu tamit jógee ci yeneen yi langue ñu doon jàng fas yéene nañ leen ko jàngal nga xam ne lépp Sëñ Tuubaa am na ko te fas yéene nañ ko jëfandikoo Mbàkke toog leen toog leen na benn caméra nan num galas njaar na caméra toog toog leen ñi nga sëriñ bi mu ne jërëjëf Mbacke sëñ Baara lay waxal sëñ Mam Baara. gerte gerte nu nganu ci dalal suñu xel bu baax. sëriñ bi ne ko gerte nu nganu ci dalal suñu xel bu baax. ndax nii dong moo day lan ko bëggee. waaw ah, nee na sëñ bi nee na nii rek la ko bëggee. ndax waruñoo am benn yëngutu. ndax waruñoo am benn yëngutu. lu dul lu dul. nekkal sëriñ Touba ci ni mu ni mu ko bëggee ci noonu. nekkal sëriñ Touba ci ni mu ko bëggee ci noonu. ni mu ko bëggee ci noonu nag moo mooy mooy sa nekkal mun a sëriñ bi wax sëriñ Baara ne ko ni ko sëriñ bëgg sëriñ Touba bëggee ci noonu mooy sa nekkin wii yow sëriñ Baara. loolu moo moo ngi mébét eh, eh, eh, yàlla guddal fan moom gudd fan bi lool ànd ak yore kàttan. sëriñ bi ne wax sëriñ Baara ne ko mi ngi mébét su borom guddal aw fanam lool ba mu mën a àggale yéeneen. moo ngi mébét itam suñu bari ñu mel na yow ci yoon mi sëriñ bi na sëñ Baara noo ngi mébét suñu borom bari ñu mel na yow ci yoon. bu nu sañoon ku ñu tudd si sëriñ Tuubaa rek eh, danga góor góorlu jéem ko jéem koo gën xam jéem ko gën a dund. sëriñ bi ne ko bu nu sañoon ku ñuy tudd di tudd sëriñ Tuubaa da góor góorgóorlu jéem a gën a xam sëriñ Tuubaa jéem a gën a dund sëriñ Tuubaa. loolu nag na na koy yoon wii rek lees mën am ba loolu mën am. mu ne ko loolu nag yoon wi res rek lees mën a jaar ba am loolu. Eh, tegu ci siraatal mustaqim kem kattan. tegu ci siraatal mustaqim kem kattan. fas yéene doon taalibi Serigne Touba itam. fas yéene doon tam fas yéene doon taalibi Serigne Touba ba fanu tax a jóg. loolu ñaar yooyu loolu ñaar yooyu rek la. alhamdulilah xamal na ma ne ci loolu nga nekk. nee na bi ne i alhamdulilah bil kon yow sëriñ Baara nii nga ma waxee xamal na ma ne ci loolu rek nga nekk. noonu laa rek xamee woon sax maa ngi doon gën mu na noonu laa la xamee woon sax noonu laa la gise woon waaye maa ngi door a xam dëgg dëgg rek ni nga jóge ak ni ngay doxee. waaye noonu doon nga nag. sëriñ bi nag waaye noonu rek la nag. li ñu war rek mooy mooy mooy li ñu war a rek mooy ku ñuy tudd di tudd Sëriñ Tuubaa ñëpp aw yoon bii nga aw. ndax loolu rek ci ci lan mën nekk ci kanam ñu ñu ñu gis gis ci ñun li Sëriñ Tuubaa bëggoon rek. nee na loolu rek ci lañ mën a nekkee ci kanam ñu gis ci noonu la Serigne Touba bëggoon. loolu mooy tax nu mën a nekk na loolu mooy tax nu mën a nekk ab royukaay. la ci gën a la ci la a dolliku. nee na la ci gën a dolliku. mooy noonu yoon woowu rek la ñu tegu. mooy nun yoon woow rek lan war a tegu. waaye da ci am beneen masuul yi xam ne leneen li ci war xam ne. taalibe yi ñoo ko ko waral ñoo ko waral ci ñun. mais waaye dafa am leneen lu ci dolli ko loo xam ne taalibe yi ñoo ko war a waral ci ñun. seen bëgg Serigne Touba mat na sëkk. nee na ndax bëgg Serigne mat na sëkk. seen doole doole doole Serigne Touba mat na sëkk. gis gis lu leen doy dëgg. lu lu lu lu mën a wàmm dëgg. ci ci diine ku taalibe loolu rek moo leen mën a dimbali. waaw mu ne taalibe yi seenu bëgg Serigne Touba doy na sëkk mat na sëkk waaye gis lu leen doy nag luñ mën a roy mu mën leen a gindi ci ak taalibe mën leen a gindi ci bi loolu moo mën a dimbali taalibe yi. loolu lépp nag weesuwut nii bi ne loolu lépp nag weesuwut nii nga def nag. wan ginnaaw àdduna. wan ginnaaw àdduna. jublu sëriñ Touba. jublu Serigne Touba. loolu mooy dëgg àdduna jublu yàlla. loolu mooy dëdd dëddu àdduna jublu yàlla. loolu rek la demee. nee noonu rek la demee. kon nag alhamdulilah. bi ne kon alhamdulilah rabbil alamin. yow sa taxawaay bii képp. sëriñ bi ne sëñ Baara yow sa taxawaay bii képp. ñi nga bokkal sëriñ Tuubaa fa tabaarakallaahu. ñi waaye dafay mel ne sa taxawaay bii képp doy na yaakaar. waaye day mel ne sa taxawaay bi képp doy na yaakaar. doy na yaakaar ci ci li li nu war ci suñu diggante sëriñ bi. doy na yaakaar ci li nu war sunu diggante ak sëriñ bi kon Mbacke ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax sëñ bi sëñ Baara kon yow Mbacke ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax kañ bu baax a baax nee ko mi ñu ngi lay kañ bu baax a baax bu baax a baax di ñaanal bu baax a baax a baax sàmm la te aar la te bàyyi la fi yàgg la fi lool nga am mbir ak kattan goo a yàlla sàmm la te la bàyyi la fi yàgg lool te ak kattan goo a wéyal goo gën a gën a mën nekk ba nga gën a mën a nekk ci liggéey bi. ji moom xam naa ne moom amul fu mu yem. nee na ko yéen a moom xam naa ne amul fu mu am wér ak waaye nga am wér yàgg lool. ba gën a mën a ba a ba gën a mën a nekk ci liggéey bi. ñoo ñoo sunu borom bu ne ko ñoo lay sant sunu borom bu baax boole. ak sant sëriñ Tuubaa na bëgg mooy suñu sant sëriñ Tuubaa mi nga xam ne bëgg na mooy suñu lépp tey ak ëllëg. sëriñ bi ne sëñ Bara kon yoon waa ngi noonu rek. yàlla na suñu borom gën a gàttandu ak tawfeexi sëriñ Touba. li nga weesu sax tawfeexi ndimbal rek la. ko li nga weesu sax tawfeexi ndimbal la. day ñaan waaye dañuy ñaan muy dolli ko di am nag yow ci ku dem ma dem daal lañ bëgg a def dem ba sori na. waaw ah, yow waxoo dañ ko def. am xam-xam am am kàttan. ay xéewal nag nañu dab li mooy adde ji téeméeri junni yooyu sa téeméeri at yu ànd ak wér yoo liggéey Serigne Touba lañ ci bëgg ak mbooloo sama xol sedd na lool sama yaakaar dolli ko na bu baax a baax baax waaye nii rek laa ko bëgg amul yaari yëpp yett yi ko dangan nii rek nekkal Serigne Touba te muy te mu te mu te mu te mu yëkkin ci moom nekk jëriñe tey mbokk yi dégg ngeen kàddu yooyu moo bàyyi ko ci Serigne Mouhamadul Mountakha muy kàddu yu sant kàddu yu gërëm kàddu yu ñaan kàddu yu soññe waaye nag muy kàddu yu dal xel ndax li nga xam ne wax na ko sëriñ Mame Bara loolu dal na xel waaye soññe na itam nag wax nee na ko yoon yi ñu dëgmal yi ne ànd ak taalibe yi liggéeyal ci Serigne Touba bu ñëpp mel ne yow sunu xel dana dal sunu xol dana sedd. dëgëral nga sunu yaakaar waaye nag ñoo ngi leen di wétalikoo kon fa ay kàddu la yoo xam ne kàddu yu soññ la waaye nag kàddu yu dal xel la kàddu yu sedd xol la kàddu la yoo xam ne itam mënees na see rafet njort ànd ñaanalaat sëriñ Mouhamadul Mountakha mu gën fee yàgg lool ba àggale yéenim ci lislaam euh, bi nga xamee ne siyaar nañ ba noppi nag sëriñ Mame Bara àggale na yéeneem ci ànd ak dong yëpp tàbbi ci biir jumaa ji ñu si tisbaar foofu daal fay def ay kuréel dem siyaare ku tedd ki xadimu rasul ànd ak ñoom ci biir loolu ñi nga xam ne itam ñoom ñoo di ay imam foofu ci jumaa ji mu indi sëriñ ku mel ni sëriñ Afia Bousso indi na ko mu ñu siyaare dongo yi siyaare ko mu ñaanal mu leen yéemu ci lool nag ndax itam nag aw doxin la woo xam ne e, ku nekk ko kuy dégg sëñ Maam Bara ci ruxam ba rek du taxamoo lu mu fa nekkee keroog bi nga teewee ci jumaa ji ak mbooloo mi xam nga ne lii nii rek la mën a demee ñëpp di ñaanal sëriñ Maam Bara suñu borom gën ko fee yàggal sëriñ Afia Bousso moom sëriñ nekk foofa moom suñu affaire bu so bokk ci ñi nga xam ne ñooy jiite jumaa ji rafetlu liggéey bi lool te bu ko moom bu ci taxawee rek mboolem ñi nga xam ne ñoo seq jumaa ji moom moo yore seen kàddu ndax moo jiite daayira Muxaddamatul Xidma bi nekk ci jumaa ji lii kon mbokk yi moo di siyaar général bi nga xam ne daayira daara Xidmatul Xadim Sëriñ Mame Bara Mbacke moom si Moustapha Abdou Aziz def na ko ci xalif général de Mouride le 16 avril 2018 ci kër Serigne Touba gi noonu ñaan suñu borom defal nu tawfiq àggaleenu àggaleenu suñu yéene ci barke Serigne Touba Serigne Maam Baara itam yéene ji nga xam ne am na ko ci daara xidmatul xadim noonu mu wëree ci dëkk bi nga xam ne daara ji am na fii ci Touba ay gox am na ca mbaam jigaan am na ca tob bi jóob ak ak ay ay barab yu bëree bëri ni mu ko bëggee rek daara ji yegg foofu yàlla na ko suñu borom kattanal ci barkeeb way juróomu tedd ba nga xam ne moo sosoon lii bàyyi ko moom mu ànd ko ak ay bokkam yépp tàmbalee ko ci sëriñam sëriñ ak mboolem njabootu si Moustapha Abdoul Aziz yàlla kàttan na leen ba ñu àggale yéen ci si Moustapha Abdoul Aziz foofee ci daaru Tansil wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.